Eh, dañuy ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo di eh, situation bi Pastef di di dund ak mbirum eh, El Malick Ndiaye mi ñu jàpp ci audio boo xam ne nee nañ di moom ay euh, audio la en tout cas gisuñu amul image buy buy buy wane ne moom la audio la voix bi xaw nañu nuroo am na sax ku ñu wax ne moom moo def audio boobu Papa Alé Niang moom ko moom moo ko wax démb nekk ku nekkoon sax ci Macky Sall ku doon ànd ak Macky Sall te ji ma nga ci bitim réew kooku moom moo def moo def audio bi. donc ba léegi nag mun ñu bàyyi euh, ki nga xamante ne moom moo di El Malick Ndiaye situation El Malick Ndiaye ak Pastef de façon générale rapidement parce que amuñu euh, temps bi ngi xoña te mm-hmm. Moustapha dafa am émission. ñu gis après. Mhm. bu ñu ko mënee euh, résumé rek. donc euh, ça. waaw euh, audio day boo ko dégloo nga xam timbre vocal wala nga xam waxinu jolof jolof ak saalum saalum ak yooyu da ngay daal di xam ne niroowut ak loolu ak tamit njàng mu kawe mi elma lay jàng ak kee ni muy waxee mel ni saa wolof muy waxee ni muy waxee 14 la 14. ahnaf billahi gi ni mu koy waxee bokkut ak ni ko elma lépp daal am na fu ñu wax le 18 ak le 14 ak jooju loolu xam nga am loo xam ne da ngay dem ba pour man yenn saa yi nga dégg ñu naan am na ñuy seté des discrédits suñu institution yi mais ñi incarne institution yi chaque fois dama koy tolontiwaat di ko wax day mel ni ñoom ñoo koy salfaañal seen bopp parce que bu ñuy wax tey xarañte gi nga xam ne moom la suñ takk der yi xarañ ba noppi ñu mën leen a wax ne audio bi la toppee El Malick peut-être mën na am ñu wax ñu leen leneen la te man maa ngi doon dégluwaat euh, jataay bi mu seq Babacar Fall foofu gisuma ci lenn loo xam ne mën nga taxaw jàppe ko El Malick Ndiaye foofu beneen bi mooy nit la koo xam ne kuy assimil mi wax beneen bi mooy ku kees yar la mm-hmm. que am na xadar walla nangam nangam xam nga nit ñi dañuy jaawale am yambar ak ak ak ku yaru am na ñoo xam du ñuy yàmbar mais dañ leen a yar. duñ mhm. la bàyyi nga di leen kéegi Pape Malick Ndiaye noonu la mel waxam saf na lool mais xam na wax teggi ni mu war a jëfandikoo ngir wax li mu bëgg a wax te du te du wax du génn gaam comme ni ñu koy waxee xam na ko kon buñ ko jàppee ak loolu dama yaakaar ne dañuy dañuy dañuy tuutal daal suñu ay FDS. Mhm. rawatina bisub dibeer biñ ko jàpp koo xam ne yow yaa ngi ko tënk ba noppi tegal ko ay euh, bracelet électronique mën koo xam fi mu nekk jékki-jékki ñu ne la jàpp nañ ko ci lii mënoon na nekk li ñuy wax diversion maanaam tey li ñu doon teg démb mënoon ko ci jàpp mais lu mu mën a doon rek. ñu ngi fooyee li gën a kawe ci ñun muy suñu ay takk der. xarañte gi ñu leen di waxal comme waa section recherche wala brigade recherche wala dikk wala yooyu nga xam ne boo leen doon dégg rek ci lu sérieux nga leen wax nga leen di dégg kon lii bu amee dafa mel ni loolu la ñuy néewal doole. Mm-hmm. daal xam naa réew mi daal. loolu la gaaw soppi koog jàmm. Fatou Kama. en tout cas doy na waar ma na waar trop parce que déjà moom El Malick mi ngi nekkoon sous contrôle judiciaire wala boog mi ngi takkoon bracelet bi donc je pense pas que dina am na ndof bu toll ne di def yenn audio yi. Mm-hmm. wala dina jël yenn risques yi te mu xam bu baax a baax ci ban situation la nekk déjà. je pense que euh, ku kuy moytu la booba léegi eh, ñu ngi koy topp déggandi dégguñu ko si lenn loo xamante ne mën na ko dugal wala mu euh, indil ko ay ndëgg ndëgg sërëx mm-hmm. donc li am ni wax dëgg yàlla euh, jaaxal na nit ñi te comme ni ko saa waxee rek suñu ay force de l'ordre tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi indi déjà peuple sénégalais ko si wax ma ne Sénégal amul yoon mm-hmm. koo ci wax mu ne état de droit bi ñu doon wax ak dëkku yoon boobu noonu yëpp actuellement nit ñi dañoo tiit sax parce que dañoo jàpp ne saa yoo xëyee yow sénégalais lam bi rek. Mm. mën nañ la ñëw takkal kole la motif wala nit xool la neexoo ko mu sosal la andi la loo xam ne mën nañ la si jàpp tëj la donc bi amatul benn équilibre doole bi mu ni mu daan respect bi ko nit ñi daan jox. nga mm. wax mm. amatu ko benn yoon parce que franchement audio bi man euh, déglu naa ko dégluwaat ko dégluwaat ko dem naa si ay. émission yu yu El Malick def di déglu di dégluwaat mais voix yi boo xoolee am na différence aussi seen euh, prononciation mots yi am na ay différence yu bëree bëri donc yoon yoon tamit nañu xoolaat li nga xamante ne moom la ñuy def parce que bu yàggee tam lañuy jox dëgg ñuy wax ne euh, Pastef rek la ñu visé et que Pastef waa Pastef rek la ñuy teg yenn injustice yi. Mhm. Mohamed. Hmm. ci arrestation borom euh, ki nga xamante ne mooy El Euh, ak Pastef tamit yenn ci ay responsable yi ñu euh, yi ñu arrêté bi ci mujj mooy euh, El Malick Ndiaye bi noo ko jàngate waaw xam naa ne en grande partie li ñu si li ñu si doon wax waxoon nañ ko depuis démb mais juste pour dëggal yaa lu mu wax ci moytu gi parce que à multi reprise dama doon dajeek moom sur le terrain rawatina bu yeewee askan wi organisé mais da ngay gis dafay effacé wu carrément même fu leader yi di toog sax du fa du fa bëgg di toog donc kooku mu ngi doon moytu carrément euh, ngir bañ yenn yu mel nii euh, fekk ko si en tant que communicant koo xamante ne responsable la je pense que ni wax jooju mënoon nañ ko taqal ku ne ba mu des euh, El El Malick Ndiaye et bi waajooju génnee Euh, ak interview bu mu def ak Pape Alé Niang minute qui qui mm. suivait dañ ko waroon a bàyyi mu ñibbi këram. parce que génn na bi mu waxee carrément da ngay xam ne kii audio bi ñu naan moom moom la El Malick def euh, pourtant defu ko xanaa ne serait-ce que ñoom ñu lang pour téye ko foofu pour xool yeneen i moto fi ñu ko mën a coller dafa am loo xamante ne nag. ku ko waxul rek mm, da nga wax li ci ginnaaw dëgg mooy ni ñu singalee ñooñu waa Pastef et tey bu Pastef génnoon wax benn kàddu bu jàdd rek di nga gis euh, ay kilifa bu bokkee ci boor bu ne moo xam autorité coutumière religieuse fu mënti bokkee ñu génn dal ci seen kaw tey ñu ngi dal ñoom ci seeni kaw ñu jàpp euh, Fadilou Keita koo xamante ne peut-être lañ koy toppee même bu doon dëgg la wala kii la flagrant délit la kooku heure bi waroon na tëdd penam ba génn di doxi soxlaam ans mu ngi ci biir kaso gi nga romb ko ñëw ci euh, Bassirou Diomaye Faye moom itam lañ ko jàppee. Cheikh Amadou Bamba Diop mu ne tey gisuma bi ngeen di def ci kaw nit ñi je pense que a am na force populaire bi nga bëgg ëllëg bu tollee fenn fi boo ko ñaanee mu may la bu tollee si yenn diggante yi dafay laaj nga àddu te xaaj ci door fi nga xamante ne foo fa la dëgg gi féetee mooy ki nga xamante ne mooy yar bi di leen ko bàcc tout temps nga téye yar bi après nag soog a jàmm mën a des parce que jàmm am lu koy suuxan mënoo ab organisation ñu yor seen i kilifa ak seen i seen i njiit ngay jàpp di tëj di tëj di tëj di tëj après am na fu muy yegg bu kooku fippoo ñu commencé euh, teg ci deram nitu firnde naag yooyu je pense que yooyu pour ñu moytu ko il faut ñu war a intervenir ñu intervenir wala ñu interférer yenn saa ci ci yenn décision donc mm-hmm. loolu lu ñu war a def la carrément pour que jàmm mën a sax si réew mi mais en tout cas lu mu ci mënti doon li leen di teg mu ngi bëgg a tar parce tamit buñ jàppee seen i dunq di suqi di suqi di suqi dinañu bëgg a naaw mu leen te buñ fippoo dina métti si ñëpp. Hmm, ñu jël euh, benn euh, euh, titre ci la presse mooy quotidien yi génn tey daal di koy commenter puisque li nga xamante ni moom moo di waxtu bi xoj nañu maître nouvellement affecté dans la ville du nord maître Ngagne Demba Touré accueilli en fanfare par les responsables de Pastef Matam Ngagne Demba mi ñu affecté. woon na jamono yële fële ca Matam démb la daal di dem jël euh, service fële ca Matam ñu daal di koy euh, teeru nag teeru bu xumb euh, ñi ko def mooy responsable Pastef yi nekk foofu ca diwaan bu Matam ça c'est c'est commentaire. waaw di ko ñaanal suñ borom. jàppale ko foofu mu nekk te waa Matam jariñu ci xam-xamam ndax Sénégal moom fépp Sénégal la suñ demee ba boo nekkee bitim réew ñu la bëggee sanctionné maanaam mel ni ku lay teg lu métti indi la Sénégal mhm. Sénégal boo nekkee Ndakaaru di balbal ba jaaxal gars yi ñu ne nañ la sànni ji Kédougou wala maatam kon ñoom ñi ñuy jiite sax xam nañ ne foofu moo gën a métti te moo nekk ci dëkk yooyu la gën a gañe beneen bi mooy li ci ñoom li ñu war a sant yàlla mooy dafa am dëkk yoo xam ne waa ji daf ko jàppe woon sas garde maam terrain sas garde maam ñu naan titre foncier am la ak yi demee noonu te loolu bokk na ci liy weddi liy weddi loolu maanaam weddi mooy dindi mbir moomu maanaam boole ci waa Pastef kon yenn saa yi nit da nga ko yàqal yaakaar yaa ngi koy yàqal fekk yaa ngi koy defaral ndax askan wi yii ñuy def ñëpp buñ xoolee ne li tax ñu koy teg nii mooy ñi seen bëgg réew a tax ñu teg leen ko léegi nag lan la askan wi wax ñoom dañu dañuy yóbbu ku ne yaa ma saf ma saf lu comme niñ koy waxee beneen bi mooy euh, na ndaw ñi bàyyi ba génnee ko jóg. waa ji waxoon Youssou Ndour ca woyam wa salañ salañ. ak say salañ salañ. ak say keseŋ keseŋ daal ne bàyyi ba génnee ko jot. pour mhm. ko génnee ba mu jeex bul ko yàkkamti. Mhm. maanaam buñ ko yàkkamti. dañ mhm. bàyyi ba gars yi jébal loo xam ne tey day wane ne Ousmane Sonko du bokk wala nangam nangam ñu doog a xalaata. falaayam. d' accord doy na waroon xel. rapidement yow sa ci euh, Ngagne Demba Touré. yóbbu nañu ci suñ papa Youssou Ndour nii. waaw ci suba gi. <laughs> waaw xanaa di ko di ko di ko di ko ñaanal rek euh, comme que euh, yegg na si jàmm te di ko wax ni aussi bu mu jàpp benn yoon ni que yóbbu bi ñu ko yóbbu Matam lu koy yàqal la noonu. je parle pas politiquement mais euh, côté professionnel dina nekk loo xam ne dina ko jàppale bu baax baax parce que jeune la xale la et que xarañ na ci côté bi mu nekk. Mm-hmm. te jàpp nañ ne dina fa def ay merveilles yoo xamante ne nii dina ko permettre mu mën a gën a yéeg ci kaw euh, par rapport ak euh, liggéeyam. Mm-hmm. donc politiquement aussi nag bu mu jàpp ni que lu koy gaañ la wala lu koy gàllankoor la déedéet au contraire fii foo mënti nekk joxe sa avis mën nga ko. wax sa soxla mën nga ko et xëy na Matam sori na soriwul lépp lu mu am loo xamante ne war na ko mën dox si Dakar dina ko ñëw dox si donc dañ koy encourager rek et di ko ñaanal yàlla jàppale ko ci fonction bu bees boobu. Mohamed waaw bon man jàngat bi mu si def mooy politiquement bu fekkente ne dañ ko defoon pour pour pour sanctionner ko def nañu erreur parce ku mel ni Ngagne Demba Touré am fasaaxa bi am balaaxa bi mën a wax ak askan wi ak ku nekk ñu koy dégg nga yóbbu ko fi nga xamante ne jàpp nga ne yow. si li gën a fës si ñu lay voteel foofu la ñu nekk je pense que ni loolu erreur politique la et dinañ ko gën a may temps parce que foofu même bu fekkente ne liggéey tar na tar na dossier yi melul comme lu mu doon mel si tribunal bu Ndakaaru di ko gën a may jot mu gën a rencontrer seen i yi nekk foofu gën a taxawal seen seen i base biir Matam mais beneen bi si des damay interpeller ci wàllu sécurité am parce que dañu xool discours yu gën a virulent ci wàllu politique jógee si ñu faree ci nguur gi ñu dëkkee côté boobu ñoo ko def ñu ngi fàttaliku Alioune Doumbourou Sow ak Dias ak yeneen yeneen yi xamante ne yëkkati nañ ko comme ay kàddu wax ko donc foofu damay interpeller ci sécurité ci intégrité physique ñu sàmm ko ba nga xamante ne dara du ko du ko fa xuusi dara du ko fa wokk et tamit ñoom it bu ñu mënee euh, fexe tamit sàmm seen kaaraange bopp di moytu yenn yenn déplacement yi wala yenn yenn kii yi ngir mën a wattu daal seen kaaraange nañ ko def et ñi leen fa yóbbu aussi ñu gën a taxaw ci seen kaaraange parce que fi ma ko teg mooy discours yi gën a ci wàllum politique